képp ko xam ne bokkoo ci sumay soppe bokkoo ci sumay am di jàmm bokkoo ci sumay mbokk waxuma ak yow nit bu waxut ak yow nag danga cay mànn li ma bëgg a wax mooy bés bi nga xam ne ci lañuy ñaanal suma waajur bu jigéen bi génn àddina yàlla yàlla jéggal te yërëm muy le 24 novembre novembre 24 ci la plainte Mame Makhtar Gueye ak Jamra yegg ci loxol ñam war a yegg ñu convoqué ma keroog laa njëkkat fanaan ci loxo yoon ci àddina bi ma fa duggee su may mbokk ñoo ma njëkk a fekk si biñ ànd ak man ci suba gi Moustapha Dramé fekk ma fa bim ñëwee wan ma cofeel ak mbëggeel ak considération boo xam ne awma ko ci ñu bëri doomu ma lu mën a xew il faut reconnaissant ndax dafa am solo bi loolu amee mu ne ma kii min na tribunal bi jox ma dara ma jox ko ma ne ko ñaata mu ne trois cent mille ma bàttale su may rakk ak suma liggéeykat yi ñu yëkkati trois cent mille jox Moustapha Dramé mu ëlbati ko di laaj suma rakk bu jigéen ndax man am naa xaalis ndax nangam ndax nangam kooku wax ko lim xam guddi gi mu fekk ma police centrale ni ma naa ko jox un million franc CFA ndaxte mandat dépôt bi retour de parquet yi ma doon am mu ne trois cent mille ya ko jox moo tax ma am retour de parquet mais sinon rëbës laa doon fanaane le novembre ma yëkkati un million dig la ñu jox ko ko bër set la leen ne kii dóor na suma xaalis suma mbokk yëpp ne Moustapha du def loolu itteelum cam nangam ma ne leen baax na ba ma jàll rëbës waxuma ko dara ma bàyyi ko ci biir rek su ma ko woowee dañuy maslaa ak a nekk ci jàmm rek ba suma bugaay jur bu góor nekk ci situation yu mu soxlaa xaalis feebar ma yónni sumay rakk ya ko joxoon xaalis jotuñ ko man la woo ko Moustapha ñaata moo des sa xaalis mu ne ma jox naa ci juge ak procureur quatre cent mille a des ma ne ko quatre cent mille joxal ma ko su ma rek su ma bàyyi nekkul dama bëgg a wax ne maa baam wala déedéet loolu du wax mais doom june sa waajur bu nekkee ci bon moment sa war nga koo jàppalante sa rawatina bu nekkee ci moment bu dul bon moment li ko waral mooy waajur dañoo amut fayam Moustapha na ma baax na maa ngi koy jox say rek ma delluwaat su ma néeg tëdd ci biir kaso rakk yi di ko woo kenn jotu ko ma woowaat ko mu ne ma dinaa ko dinaa ko dina la ko jox fekk balaa loolu sa noonu naa ko li ci des téel ma ko bi ma ba ba loolu si laa woo benn jigéen expliquer ko situation bi mu daggee paas Europe ñëw defal ma su ma soxla dama Cheikh Ahmed ni nga mel ci man doo nekk kaso sa bàyyi feebar ma di la laaj xaalis nga nga may nga may leb ma lay lebal du ma ko def noonu Moustapha Dramé yàllaay kese tëdd ci suma xaalis ma génn kaso wax ko mu ne maa ngi ñëw sa kër indil la xaalis maa ngi génn la 7 février 8 9 10 11 12 13 ma woo ko te mu ngi dëkk Mixta maa ngi dëkk Liberté Extension une semaine laa ko may mais yegsiwul waxaat ko mu ne may ma suba ma may ko ñetti fan ñetti fan yi jot mu ne ma waat suba ma mayaat ko ñetti fan ma dem këram Moustapha yëkkati benn cinquante mille ne moom la may jox ma ne ko déedéet ma nekk léegi cent mille laa ko may ma ne ko Moustapha li ma naqari mooy nan ngay amee nit ku la yàlla booleel muy sa am di jàmm caabi féete ko ginnaaw yëkkatiwuloo sa xaalis dem dimbale ko ci biir kaso nga lekk ci moom un million trois cent nga ne juge nga ko jox procureur nga ko jox juge bi maa toog mu ne ma Cheikh Ahmed bi ñu la jàppee amul ku ñaanul njekk nekk réew laa bëgg li la war mooy nangam nangam ma mu ne ma kenn nag yëkkatiwul xaalis jox ma ma toogaat ma ne ko kenn joxu la xaalis mu ne waa ma wax ak juge ba la ma war a wax ak moom juge ba liggéeyam la def pratiquement yem ci procureur de la république ma seeti ko ñu waxtaan mu wax man la may wax ma ne ko Moustapha li ma jaaxal naqari ma moom du xaalis ndax nit bu dee sa am di jàmmale war naa mun a jël sa 3 millions war nga ko mën a may 4 milliards mais nit ku ne daf la soppi nit ku ne dangeen am jàmm ngeen di saalum saalum bokk tarixa Seexu Tijaan yi caabi féete la ginnaaw amul yërmande amul considération ñëw mën laa dóor foofu xaalis bi sa papa feebar yaa ngi kaso fajul ko ngir bàyyam la nga laajaat ko mu bañ nga génn kaso laaj ko xaalis mu ne la maa ngi nga may ko une semaine may ko trois jours mu ñëw di cinquante ma ne ko man soxla ma lii mais acte baaw métti mu ne ma ñeneen a ma dóor ma delluwaat ci ñi amee loi ñu ne ma su ñëwee ba fii ñu dañ leen di foog naa sanctionné la tudd xaw ma da dañuy am problème ma ne ko Moustapha ñi lekk suma xaalis mu leen ko baal mais man ak yow rek dix millions xaaj ku ñuy wax Cheikh Gadiaga bu Cheikh Amar Cheikh Gadiaga mu baax mi ngeen xam dugg ci wax ci na ko xaalisu Cheikh Ahmed bu la ko may deru xaj la mënta julli mënta wir la jox ko alalam du client bu ñuy dóor moom Moustapha wax la muy wax ne neen ko may ba lundi ma ne ko jëlaatal ba mercredi mercredi woowul Cheikh Gadiaga woowul ma jeudi la woo tey suba ngoon tey suba ngoon jëf ji mu def nag wutee na ak li muy jàngale ak li muy wane comme musiciens yi ñoo mën a dem safara lu nekk dafa xaram dafa dagal waa kay fa nag mbokk moo am ci yàlla caabi féete ko ginnaaw nga ñëw di ko wan mbëggeel lekk xaalisam tuumaal juge tuumaal procureur de la république jël un million trois cent lekk ko toog ci tane sa liggéey doxul yow fan nga jëm porte plainte naa ko nag au niveau du procureur porte plainte naa ko cybercriminalité seede yëpp bind neen su coow jógee nii la demee te ku ku nekk ci kaso 24 novembre 25 26 mu jox la xaalis bi 27 mu joxaat la xaalis non non non 24 25 25 laa ko jox xaalis ak 26 ba ma génn kaso la set di muñ di muñ ba fii. sénégalais dafa doon na fekk da ngay wax mu ne mënoon na ko suturaal da wax mu ne munoon naa nopp da ngay wax mu ne jaru ko waaye ndax xam ngeen sentiment bu ma sentir ci ku doon woote xarit ak man ma nekk kaso mu jël suma xaalis su ma bàyyi feebar ma war koo faj mu di ma tardeel ma génn muñal ko la set ba tey ngay jot vidéo bii nii la 5 mars patience boobu muñ googu ndax yow mën nga ko kon balaa ngay juge nit ki solal dàllam jaar yoon ba jaar dëj bu ko dëj jam ba xam di nga siiku wala da ngay yuuxu su boobaa ngay xam kan mooy jàmbaar kon daal Moustapha Dramé lii la jëflanteeg man du ma fi nekk nag naan dafa baax wala dafa bon déedéet aw ma duraa xas ko ndax gënuma ko mais lim jëflanteeg man nag mën naa cee wax duma ci yokk du ma ci wàññi. wasalaamaaleykum